ndaje mi li ko waral mooy euh, forum international finance islamique bi ñuy def euh, ci Diamniadio bi mooy juróom-ñaari yoon bi euh, septième édition incha allah le 20 juin lañ ko bëgg a def centre international de conférence Abdou Diouf ci njiitul président Macky Sall nga xam ne yàlla dogal na mu confirmé ne incha allah moo koy présider forum bi nag di forum boo xam ne institut africain de finance islamique institut boo xam ne day jàngale finance islamique moo ko taxawal euh, ci partenariat gouvernement du Sénégal à travers le président de la République boo xam ne wane nañ seen pas-pas pour taxawal industrie boobu ci Sénégal di koy firnde euh, président ci boppam di teew waaye gannaaw loolu it ministère des finances et du budget nekk suñu partenaire depuis bu yàgg di ñuy jàppale ci ci taxawaayu industrie boobu euh, kon nag conférence bi liy firndeel engagement gouvernement bi moo di présence su monsieur Ousseynou kan nga xam ne mooy directeur bureau opérationnel de suivi te du gouvernement du Sénégal ngir ni mu ko waxee ñaari yëf wane ne lu ñor gouvernement Sénégal la moo tax président ñi ñëwul boppam engagé gouvernement bi euh, beneen bi ci toppitam di wane ne lu amal njëriñu réew mi la ndax xam ngeen ne finance islamique ñi nga wax ci àdduna bi ne ëpp na 4000 milliards de dollars ci ay actifs te euh, day màgg-màgg gu gaaw a gaaw te. ma ne suñ réew yi ñii ñëpp ko soxla ci ñi bëgg seen ay jëflante dëppook sharia mooy benn ak ñi nga xam ak itam réew yi nga xam ne dañoo bëgg ñi investir te bëgg mu dëppook sharia ñuy investir Sénégal ndax ñu mën a développer infrastructure yi